mais ñun suñu récépissé c'est apolitique ñun politique guñu chef de service social bi nga xam moom moo nekk fii ci diggante Touba ak Mbacké ñoom ñoo ñëw seq ak ñun liggéey bu rafet ñoom liggéey boobu ñoom ñoo ko njëkk tàmbaleel seen bopp ñoom ñoo ñëw seq ak ñun liggéey bu rafet Khadim Ndiaye ak Omar Cissé dañu yëkkati seen alal di ko def ci ñun di yëkkati seen gasoil jël seen temps di ko def ci ñun ba ñu gis yërmande bi yàlla don wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nan ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ñu gis ko ci khadim Njaay gis ko ci omar Cissé

jot dem na ci bus familial handicapé yi ko jot RBC mooy projet réadaptation à base communauté handicapé yi ko jot moom moom jot na ci man bi ñu wax ka jot na ci handicapé yu bari tey am naa loo xam ne mën naa ko wax xaar Xaadim Njaay mi en tant que asocial moom mënu ko wax tamit mën naa ko wax ndax moom bi fi ñuy jàngul xamu ci lu bari kon moo wax na ne carrément RB état jéego bi def dañu woote lu waat le 10 loi bi dem na assemblée ratifié convention internationale des droits des personnes handicapées yooyu yëpp mu nekk jumtukaay yoo xam ne handicapé ñu ngi koy ñu ngi koy jëfe daa fekk nag daan dayu suuf waaye fii ci département Mbacké programme état bi handicapé ñu koy gis man man naa ko seere ci wér na ma tey xam naa ni moom am na ci man am naa ci euh, bàcc am na ci mboolem ci bu dee cent handicapé mën naa la wax ni quatre pour cent am nañ RBC e am nañ ay projet dem na ba ci privé ay projet privé yoo xam ne moom am na ci man am na ci ñeen am na ci ñeen am na ci ñeen am ci te lépp lu fi jaar mu jaar action sociale action sociale woo na responsable handicapé mo xam Touba la mo xam Mbàkke la ah kii de droit ñu wax la njëkk da fekk nag daan da suuf lañu wara wax ñun handicapé ci te war ko wax ma moy renforcement de capacité nga xam ne moom la ñu war a jàkkee suñu service sociaux yi suñu services départementaux yi loolu maam mooy te jubikaay manqué ci loolu du ci ñun ci état la may fàttali ni handicapé yi dañoo war xam service social ñu mo moomuñu ko service social département la boo xamante personne nécessité yépp ñoom ñoko app ab commune la ñoom ñoo ko bokk la dëpp euh, ak social handicapé ñun moomuñu ko dañ dañ dañ fi am programme personne troisième âge am ci programme personne vulnérable am ci programme veuve am ci programme jeunesse bi ak ñu bare bare am ci programme suñu programme nag nekk loo xam ne état lu mu def dugal ci handicapé ñun handicapé département bi gis nañ ko jot nañ ci dañuy ñaan nag mu yokk parce que daan dagul suuf parce sa Sénégal moo bind noonu man Fallou Wade président handicapé départemental Mbacké cent pour cent pour cent moom def def na ko moom cent pour cent moom waaw liggéey bi moom dafa engagé dafa avancé am na fa mu am na fa mu doon dox waaye bi Xaadim ñëwee ne fii boobaak léegi dafa gën a dox waaw dafa gën a dox lool lool lool lool. waaw waaw waaw dafa dafa gën a dox moom ndax maanaam li mu fi liggéey kenn mosu ko fee liggéey daal waaw loolu man gis naa ko ca li may wax itam magum jëmu laa léegi nag état bi la ñuy ñaan mu dolli ko dooleel ko wutal ko centre bu baax bu gën a yaatu ndax ay luyaas la ñu ne ñoom ñi ak yooyu wutal ko ay moyens yoo xam ne dañ koy gën a def bu ko defee dana gën a baax waaw léegi daal lii man moom moom moom laa gis moom